jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo internet bi di 5 TV Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy daanoon nañ mois yoo xamante rek da koy tëdd waaye dafa ànd ak sursis ñeel nag di nga daal di woon la dafay diffamer maanaam daal ay sos la ba noppi rek yëkkatikat yoo xamante ne rek dafay laaleek injure publique waral rek ñu daal di woon koy yóbbu fa mbaxana doone benn cour d'appel bi ci da koo daanoon ba noppi rek di sàkku nag ba léegi rek ci boobu les jeux nag ginnaaw daan yi nga xamante ne daan nañ ko kii di Ousmane Sonko jamono bi nag conséquences yi nga xamante daal dina koy am ñeel éligibilité ci élection présidentielle yu dama ci atum 2024 bu ñu sukkandikoo ci code électoral bi nee na nag bu fekkee dañu ko condamné dëggal ko fi nga xamante ne moom mooy ci kanamu cour cassation kon moom ci jëmmi boppam nag mënuñu koo bind ci liste électorale yi bu fekkee dañ ko exclure ca cour ba nag war na mën a nekk mu nekk rendez-vous boo xamante ne rek bu décisif la waaye nag buy may Ousmane Sonko dañ koy setal wala dañ koy tilimal lépp lu mu ci munti doon rek daañu ko toppandi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat ne i info